leen waxtaanee li nga xam ne moom mooy équipe nationale du Sénégal Samuel Belmadi bi nga xam ne nag gars yi nag moom wax na ci match bi nga xam ne moo war am diggante Sénégal ak euh, Algérie addu ci également ci ay joueur am wax aussi ci li nga xam ne nag mooy lan lay moo leen lan moo leen di xaar donc du côté donc du stade Abdoulaye Wade mais laata boobu nag gars yi di leen encore une fois wéy leen di like di abonné di bës ci cloche notification mais également bu leen fàtte bës ci lien bi ma def épinglé ko def ko également ci description dem seetaan vidéo bi nga xam ne vidéo Pape Bouba Diop euh, bientôt euh, fii ak incha allah rabi gars yi 15 heures di ngeen ko am ci li nga xam ne donc Baba Show di jégalu ci retard boobu rek pendant ce également ki nga xamné l'a moy donc Lamine Jarju day donc du côté de Al Hilal bi nek ci Soudan wara même, dem du côté de donc de Grenoble en Ligue 2 française moom mi nga donc le média jaar bi ba léegi ah donc sol na Sénégal Sénégal euh, jëlagul décision nag diggante le Sénégal wala Gambie Fallait jouer donc il est toujours donc sélectionnable ki nga xam ne nag mooy donc Lionel Messi égalé record de coups franc bu ki nga donc qui euh, David Beckham il y a un autre nombre de coups francs marqués à savoir donc 5 euh, 65 coups francs marqués pour les deux équipes li nga également au jëm ci donc euh, programme donc euh, toujours éliminatoire coupe euh, d'Afrique bi am Côte d'Ivoire dernière journée bi donc gis ngeen ko Égypte Éthiopie les doon Burkina Faso Eswatini Mali Soudan donc gars aussi ben lien boo bientôt pour nous, bëgg di seetaan match exemple championnat yi donc bañ a am problème li nga également au billetterie di leen ko fàttali mi ngi bien donc à partir de demain lañ wax commence à di jaay hein. donc petit point de vente ni dem donc tel na dem jënd seen billet comme je dis ci calme ngir dem supporter Sénégal match nak Sénégal Algérie match le boo xam match mental lay le match boo xam du yomb match boo xam également aux envergures de match euh, international lay parce qu'également, comme on dirait match boo xam ne ñaari équipe gëna a ci Afrique la nga xam aussi faral nañu dem coupe du monde même bu fekkee Algérie donc mi passé demul mais ki donc euh, donc di euh, Jamel Belmadi nee na match bi nga xam mom lañ wara a jouer contre Sénégal match personnalité la néna match personnalité la mom moo koy gagné parce que également équipe bi du Sénégal équipe la bo xamné déjà dafa yóbbu ñaari équipe hein donc dafa yóbbu benen équipe B ci seen match contre Rwanda ngir rek préparer suñu match ñun ak ñom eh, Sénégal bo xamné actuellement équipe la bo xamné aussi c'est une équipe dominatrice lool la wax ki nak di Jamel Belmadi moo ko mën Sénégal équipe bu mu dajal da dominer donc équipe bo xamné sa bari ay talent et tout motax té en plus c'est ni terrain lañu jouer mom nak waxna lutax mu jël match bi nee aussi bo bëggé di gagner ak e-, équipe yu mag surtout ngay dem ci coupe d'Afrique waxna ci Côte d'Ivoire mais il faut ngay am fit di dajeek ponkal yi di len fekk seen dëkk di xol aussi lan lay joxé même bu féké né mom jamono ji néna na yenn joueur am yi entre guillemets dañoo ko ñu am ay problème Ben Sebaini bi nga xam dafa jugee ci blessure ah, donc mo ngoog wax ci aussi yenn absence yi nga xam ne am na ñoom Benacer et tout mais comme Walid kii di bokk di Djamel Belmadi wax na ko nee donc voilà aduna dal alucine nak match bi du yomb match bi du yomb du yomb ci Algérie du yomb ci Sénégal et c'est un match bo xamné carrément les Algériens également ñing koy préparé mo leen gëna ñor sax seen match bi ñu génn ta nga xam dañu nul ak ñi nga donc Tanzanie Sénégal également match bi ñor na leen comme niko ko Sadio Mané waxé donc match bo boo xam ce sera plaisant à voir match la buy neex donc euh, seetaan la et comme moi je l'ai dit aujourd'hui ñi nga xam donc Sénégal ils ont un effectif bo xamné ne convoqué nañ yenn joueurs yoo xam ne nañ ni sax à l'avenir am na yeneen booy yu ci war a mën ñëw mais Aliou aujourd'hui amna euh, richesse boo xam sur à tous les postes sur amener tay tey mën na équipe bu baax a baax un système également qui peut être diversifié amna système bari bëri xam ko tek ay joueurs yu bëri yoo xam ne mën jouer li nga xam na donc match bu ni mel lolou nañ ci defaat ab jangat ko modi rek jox len point fort bu nek ak jour bu nek ak ko dadi gissé mais en tout cas comme je dis euh, euh, comme je dis toujours bel ma di muy def lay def day y a pression bi du côté du Sénégal mais cette fois-ci comme je dis Sénégal yeewu na hein, donc mogo légui fi mu ce sera une bataille entre donc le lion du Sénégal ak également les Fennecs d'Algérie Algérie bo xamné aussi une équipe bi nga donc voilà y a des nouveautés mais il y a aussi amna ay cadres yo xamné ñi ngi donc le retour de Fegouli wax mais aussi y a yenn yenn mais comme Algérie qui est également une équipe dangereuse bu pouvez jàpp aussi Algérie match contre Tanzanie bi dafa ñu lek moy lol parce que dañoo dugaluñ une équipe type ah dugaluñ une équipe A dañu may temps de jeu yenn ci booy Riyad Mahrez sera bien présent dans cette équipe type comme Sadio Mané sera également bien présent du côté du Sénégal. Comme je dis, aujourd'hui, le Sénégal doit jouer avec ses armes. Le Sénégal doit revenir jouer sans complexe. 15 premières minutes de que ce sera déterminant. Et comme j'ai l'habitude de le dire, également même vous faites ne 15 premières minutes y' a pas de but il faudrait que le Sénégal soit serein de def construction pour l'air ngir mën jouer mais aussi gars yi encore di ñaanat ñi nga xam mooy donc autorité fédérale yi waa fédération li lay war a suri biey bu len ko jaay ben politicien bu len ko jaay ben mouvement jox len ko supporter sénégalais parce que sénégalais ñu bëgg a match ñu jël politique teg ko nele ku nek sol ce maillot wala lay sol dem match Sénégal ndax Sénégal mo ñu ñor ben bopp la kenn mënu ko xar ñaar yombal len li nga xam moy accès yi biey yi ñi sénégalais bu nekk dem mo gën ngeen koy jox en groupe di jox yenn billets yi ñeen nit ñi te duñ ko jox li nga xam ne mooy dem supporter ji donc gars yi c'est toujours un plaisir de vous servir ci kanam tuuti d'ici 15 heures vidéo bu konk ki nga xam ne donc pas Bouba Diop sera disponible jaa ngeen jëf